avant tout nous dañuy Santé, Yalla. dañuy pour plusieurs raisons parce que nous sommes ci Sénégal ñun ay lañu avant tout ay croyants Nous, sommes santé dul santé mais nous ba nous sommes dañuy ñëw acte la au niveau de Joal sommes qui posé la SAC synergie autour du changement Si une une synergie autour du changement c'est l'ensemble des bonnes volontés c'est l'ensemble des acteurs politiques comme non politiques venant de partis différents de la société civile mais aussi de la population ont une vision claire ont une vision noble euh, pour œuvrer pleinement par rapport au devenir de leur commune Moi, coronavirus la SAC n'a ménagé aucun effort pour andi Ndiapalem ci li nga xamante la lutte contre le coronavirus aujourd'hui la SAC s'est réunie debout comme un seul homme est venu vraiment apporter sa modeste contribution qui li nga xamante la lutte contre le coronavirus je pense que Apubi, nous ñun ñëpp gisandoo nañ ko ñu xeeb ko lool mais nag xeeb nañ ko parce que tey ay ndaw ay femmes ay jeunes suñu nous ne tey dañuy jappalé une population ku nek ci la nga am nga bolé ko andi ñu bolé ko djébal ko district sanitaire bi je pense que lolu c'est un acte à saluer en tout cas motax c'est l'occasion ñuy gëreum wa synergie autour du changement ci acte bi ñuy def mais aussi di gëreum l'ensemble des autorités sanitaires des autorités locales et toutes les personnes et toutes les bonnes volontés ya nga xamante contribuer nañu ci li nga xamante moy bala bi ça prouve encore une fois de plus Joal fadiou ben bopp la kenn mënu ko xar ñaar parce que lii tey firndeel na ku nek ci la nga am andi nga ko la SAC plus que jamais déterminé, n'a ménagé aucun effort pour apporter sa modeste contribution en termes de produits antiseptiques mo xam cotol mo xam détergent mo xam sabu xam gant ba ci masques pour vraiment pouvoir accompagner le district sanitaire ou bien l'ensemble des acteurs de la santé ci combat bi nga xam ne sumb nañ ko té suñu né combat nak dafa laaj nga jël say motax ñu ñëwoon contribuer si kon c'est l'occasion di gërëm ñëpp di sant ñëpp mais di ñaan si yàlla kantanam ak yërmandem lii nga xam ne mooy balaa bi lii nga xam ne mooy mbas bi lëmbe àdduna bi lëmbe réew mi rawatina fii ci Sénégal di ñaan yàlla yàlla musal ñu si balaa na rawatina fii suñu commune Joal Fadiouth mais aussi di ñaaxaat askan wi parce que askan wi duñ fi jóge te ñaaxuñu leen parce que tey moyen lu am instrument lu am matériel lu am te nit yi respecté wuñu consigne respecté wuñu Madame, mesure ya nga le président de la république ki nga le premier magistrat du pays et eh, édicté je pense que day avec notre éducation avec le respect des consignes je pense que Vous loolu rek moo ci si Chine bam ko dalé dara miracle éducation rek respect des mesures préventives mo len ci génne kon dañuy askan wi di di nañu Faites diine yi fàtte au delà de l'aspect spirituel il s'impose de respecter les normes normes préventives yi ñu wax et je pense que suñ ko respecter inshallah, yalla suñu borom suñu borom la nga les zones les plus sensibles les zones les plus vulnérables Si ya nga un point de convergence la si point de ralliement la point à savoir tan à savoir port à savoir le à savoir garage je pense que les acteurs de la santé avec les bonnes volontés il nous que nous sensibilisation parce que point de rencontre point de rencontre lay bañ point d'influence. lay nous, kon ñuy ñaaxaat askan wi les acteurs de la santé qui mesurent préventive parce que si nous avons des médecins dignes de son nom si nous avons des acteurs de la santé déterminés la population bi def je pense que nous ñu mun safara dara kon ñoo ngi ñaan bàjjenu gox yi nuñu taxawé ñu ñu koy rafetlu eh, délégué yi nuñu taxawé taxawee koy rafetlu médecins yi ñu ñu taxawee koy rafetlu les représentants des quartiers nuñu taxawé ñu koy rafetlu rawatina les autorités sanitaires kon ñun askanu nañ leen dimbali ci liggéey bobu je pense que la main dans la main avec un lien de complémentarité mis en exergue mis en exergue je pense que ensemble debout comme un seul homme avec le respect, avec une bonne éducation et le respect des mesures vraiment préventives, on arrivera à vaincre ce coronavirus et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, on gagnera le combat.